waaw ma leen di gërëm bu baax gis naa ni ngeen ñëwee euh, bëri ñëpp ñëw nañu bëri te gis naa ni ngeen concentré ci ci ci waxtaan bi mu am solo lool xam nga euh, élection bi ñëw dafa am solo trop. li tax mu gën a am solo am cachet particulier euh, ki nga xam ne moo njiitu réew mi nar ci bokk. kon nag léegi muy benn fait inédit mosul am ci suñu histoire politique euh, daanaka daal candidat yëpp dañu xaw a tolloo ci liggéey bi euh, ci mbir mi parce que ñoom ñëpp ku ci nekk kenn mosu ci nekk président de la république muy affaire bu bees euh, pour ñun ñëpp léegi ñu wax ci liggéey journalistes yi xam ne ci seen liggéey li ci ëpp dépendre na jàmm ji dépendre ci la jàpp ji dépendre ñu war def attention ci li ñuy def parce que Euh, jox euh, euh, micro candidat à la présidentielle béssu vote muy def campagne musiba dem war a jël ay résultat dem fi nga xam ne fii mooy état major parti politique du ko jël wala jox ko jël jël ko ci ay politiciens c'est dangereux da ngay dem Sénat mu nga dem SEDA mbaa nga dem journal résultat yu ñu moo dem doo dem di ko jël ci ay ay ci ay candidat ay euh, homme politique dafay tax affaire bi doy war trop wala la veille la campagne même samedi bi nga xam ne campagne amul nga dem jël benn candidat jox ko kàddu di ko diffuser loolu tamit di indi déséquilibre ci ci ci traitement bi yooyu yëpp nag lañ dajalee Euh, mu yu bëree bëri waxtaan ci ak journaliste yi wax ak ñoom rappeler lan mooy réglement yi ba nga xam ne dañu def attention trop ba mbir mi daal nekk si jàmm li ñu soxal daal mooy xaddeeku ba lu ñu lakkale te mu nekk nii daf rappel yëpp texte yeeg yëpp rappelé ko ba nga xam ne xale yi xam fi ñu jëm dañu xam leen war ba élection yi jàll. reprochage la te ki nga xam ne moom organe war na ko préciser waaye jaay émission politique du yoon te mu ngi am de plus en plus te ñun ñu ngi koy yëg. te loolu baaxul jaay émission publique dañ ko war a bàyyi war ko moytu journaliste bi nga xam ne sax moo yore euh, moo yore émission am une question de dignité professionnelle war ko nangu hmm? ba defee ay sport avant wala ay après xam naa ko mais jaay sa émission politique kenn war ko nangu loolu daal maa leen ci dànkaafu bu baax a baax a baax waaw aar les confrères sur le terrain lu am solo la ñun fu ñu dem les gouverneurs son la ou ils sont représentés dañu waxtaan ak ñoom bu baax baax ñu xool relation yi am entre journalistes suñu confrères yi ak les forces de défense et de sécurité mooy lu am solo alors ma gis nga ren ji ñun dañu def mille gilets jox ko convention de jeunes reporters ñoom ñoo suñu partenaire privilégié ci mbir mi jox ko xale yi nag sur le terrain ndax ñu xàmmee leen xam na benn euh, histoire du ci am loolu daal euh, am na solo lool bi des nag mooy euh, wax nañ ko léegi pour affaire publicité da nga wax léegi n'est-ce pas rajo communautaire waruñu def campagne électorale waruñu couvrir candidat à la présidentielle mën nañu participer nag ci sensibilisation bi wax ci cohésion sociale wax yoo xam ne day lënkale askan wi lënkale askan wi ci biir réew mi loolu lu am solo la mën nañu itam émission bi nga xam ne moom la RTS di passé ñu jël ko passé ko émission boobu candidat yëpp yi nga xam ne euh, conseil constitutionnel nangu na leen ñu def campagne RTS da koy def tous les soirs loolu rajo communautaire mën nañu ko reprendre yem ci loolu ndax loolu mooy tax euh, ñu am garantie que élection ci jàmm. Ailleurs que nous saluons la démarche, l'approche du CNRA qui témoigne d'une dynamique de prévention, d'anticipation et de sensibilisation. Parce qu'il faudrait le dire, souvent quand on parle du CNRA, on a tout de suite l'habitude de penser à l'aspect sanction, l'aspect répressif, l'aspect coercitif. Mais c'est toujours bon d'être dans une démarche de partage d'informations, de sensibilisation pour anticiper sur, sur, beaucoup de choses. Et dire que c'est un atelier qui vient à bien nommer, très pertinent, compte tenu de l'approche que je viens de rappeler tout à l'heure, mais également du paysage audiovisuel qui se densifie de jour en, en jour, la presse euh, publique, euh, le développement des réseaux sociaux et des autres plateformes numériques, où souvent on décèle euh, des actes de manipulation et de propagande. Donc, euh, compte tenu également du contexte préélectoral, donc nous allons vers une élection présidentielle en février, une élection à fort enjeu, comme d'habitude d'ailleurs. Donc il y a lieu toujours de former les acteurs de l'audiovisuel, les journalistes, les acteurs de la presse sur leur rôle et leur responsabilité. Parce qu'il faudrait le dire, ces derniers ont toujours été des acteurs essentiels dans le maintien de la stabilité du pays, dans la quête de la cohésion sociale et de la construction nationale à travers un traitement responsable de, l'information avec toutes les valeurs qu'on doit reconnaître aux acteurs de la presse et, et de, de Donc les former, échanger avec eux sur les dispositions pertinentes du code électoral, les former sur, par exemple, les actes de, de à éviter, quels sont les actes de propagande à éviter, quels sont les délais légaux prescrits par le code électoral en termes de campagne électorale pré-campagne. Autant de questions qu'il faudra aborder et que nous sommes euh, heureux de recevoir ici à Thiès. En cas, je sais que les acteurs de l'audiovisuel de Thiès sont très honorés de recevoir l'atelier. Donc, je permets de porter leur parole pour vous remercier, Monsieur le Président, pour l'initiative et la démarche surtout je viens de, de et vous souhaiter de passer de très bons travaux. Merci